ñi ngi waxtaane woon lu jëm ci aj ak farata gi nga xam ne ak ak farataam ak ak ak ñi nga ak ki nga xam ne mooy ki war a aj maanaam ñi ngi waxtaane woon aj ak am solo gi nga xam ne moom la am solo moom la aj am solo ak farata gi nga xam ne moom la nekk farata ci jullit boo xam ne da am mën na ko te war koo def ginnaaw njëkk ñuy tàmbali waxtaan wi nag ñi ngi sant suñ borom di ko tàllal suñuy loxo di ko ñaan moom mi nga xam ne mooy borom kattan te mooy borom man Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkal Sëriñ Tuubaa te taxawee lislaam suñ borom gën koo dëgëral gën koo kattanal gën koo man ta fanqal ko lépp loo xam ne mooy am ndog wala pakk ba li nga xam ne yéene na koo def ci lislaam mu def ko ni nga xam ni la ko yéenee te ñu ànd koog moom te daje ceeg payug suñ borom ni nga xam ne nu moo nu kawe suñ jot di di ko ñaanal itam képp koo xam ne yaa ngi taxawee islam suñu borom jox la kattan jox la man musal la ci ndog yeeg pakk yi ba li nga xam ne yéene nga ko ci lislaam nga def ko nu kawe suñu jot nu kawe si nga defee ko nu kawe suñu jot ñun ñëpp loolu suñ borom mën na ko jàpp na ko yàlla nañ ko defal delluwaat di ko tàllal suñu loxo itam di ko ñaan moom mi nga xam ne mooy borom kattan te mooy borom man te mooy borom sañ-sañ lii nga xam ne moo nu jaaxal te nga xam ne mi ngi bëgg yàgg ak ñun moom te moom képp moo ko fi mën a dindi yàlla na ko yàlla nañ ko fi dindil ci dindi ci àdduna sépp ba mu jeex fi tàkk te loolu suñ borom mën na ko jàpp nag yàlla nañu ko defal suñ yàlla nañu ko def yàlla nañu ko suñ borom defal ginnaaw loolu nag li nga xam ne moom lañ bëgg tey mooy aj moomu nga xam ne waxoon nañ am solo gi nga xam ne moom la am solo waxoon nañ itam ne farata la ndax bokk na ci lenn ponk lislaam kon ndax aj moomu képp koo xam ne man nga ko rek dalaa daa dalaa daal di war ca saasa wala man nga koo yeexe ba jëmmi jamono nga def ko loolu nag am na ñaari wax wax ju njëkk ji mooy képp koo xam ne aj war na la te nga man ko mën nga koo yeexe as diggante so def ko waaye am na ñoo xam ne dañoo wax ne sañoo koo yeexe ñi nga xam ne dañoo wax ne sañ nga koo yeexe as diggante mooy dañoo tegtaloo ci li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ndax xam na ne aj ñi ngi ko faratal ci ginnaaw ci atum juróom benn juróom at ginnaaw gàddaayu ginnaaw gàddaay gi ci dañ ko faratal te yonent bi sallallahu alayhi mu ngi aj ginnaaw fukki at ginnaaw gàddaay gi kon toog na ay as ndiggante soog koo def ñu xam ne nag kon bu fekkoon ne lu war la ci boo ko mënee ca saasa nga def ko kon yonent bi sallallahu alayhi wa du ko yeexe ba fukki ba bàyyi bàyyi mu wat mu war ci juróom-benni at juróom-benni at mu bàyyi ba fukki at mu di ko soog a def loolu ñooñu ci lañ tegtaloo ba wax ne kon ma ne man ngaa am man-manu aj ba noppi yeexee yeexe ko te yeexe googee du bakkaar du la ca topp ndax di ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ñeneen ñi nag ni wax ni ñu wax ne moom bokk na ci ñi nga xam ne ñu wax loolu la muy ki nga xam ne mooy suñ moom la ñuy topp am ngërëm muy say muy imam Malik moom wax di mu wax mooy dafa wax ne aj moom dalay daal di war ca saa saa yow ko banee rek amul loo ca néggandiku wala loo cee xaar danga ko war a def ci waxtu woowa li foo moom it fi mu tegtaloo mooy ci waxi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci loo xam ne ibnu abbas moo ko nettali ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne képp koo xam ne bëgg nga aj muy am nga loo mën a ajee ta te war a aj li nga war a def mooy da nga war a gaaw def ko ndax kat man ngaa feebar man ngaa am gàllankoor ci sa dem man man la nga yoroon itam soxla mën na koo yóbbu ba ba doo mën a aji kon bu fekkee ne aj war na rek da ko war a daal def ci ci ci saasa ñi nga xam ne nag ñoo waxoon ne aj sañ nga ko yeexee ndax di ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam yeexe wax ji nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wax dañoo wax ne da ko wax rek ngir bëgg soññee ci képp koo xam ne mën nga aj nga du daaw gaaw gaaw ko def balaa ay gàllankoor di jëw loolu rek moo tax mu def ko ñu xam ne nag aj moom mi ngi war ci ab jullit ni nga ko waxee woon ci àjjuma ji weesu na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bañ ko laajee ne ko jëf yi lan moo ci gën dafa waxoon ne bi ci njëkk mooy nga gëm yàlla gëm yonente bi sallallahu alayhi ba noppi nag soog a def jëf yi nga xam ne moom la la lislaam waral ci yow nga soog a mën a am jëf ju baax mu mel ni kon li nga xam ne moo xew ci àdduna si ci ci doomu aadama yi muy li ñuy tuddee wala wala li ñuy tuddee stage nga xam ne benn benn lay jël doonut ne dañ laa dañ laa dañ laa defal contrat waaye dañ laa wax rek mën ngaa liggéey mën ngaa liggéey googee loolu lislaam moom jàppewul ne jëf noonu la war a demee li mu defee mooy li jàpp mooy képp ko xam ne ñu ngi lay jël ngay stage wala nga xam ne yaa ngi dañ laa jël ngay ngay walanteero day war a fekk ne am nga contrat ci fa ngay liggéeyee waaye waroo ñëw rek ñu daal na lay liggéeyal te amul benn gaal amul benn àq boo xam ne war nañ ko war a war nañ ko war a warul ci yow islam kon dafa doon koo xam dafa doon loo xam ne bëggut kenn kuy jëf ci moom te fekk te jëf ja doon loo xam ne danga koy def rek da doo ci am dara daa bëgg lépp looy def nanga ko teg fu wóor ba nga xam ne kalay lay jëflu dana xam ne amaan na la àq ba war laa fay loolu nag mu doon lu am solo loo xam ne jàngat bu nga ne warees na koo jàngate ci lislaam muy loolu loo xam ne lu ñu war a lu bàyyi xel la ndax xam nañ ne bokkut ak nga xam ne loolu bokkut ak nga xam ne mooy doxee ci àdduna si ndax da ngay gis koo xam ne mën naa nekk volontaire wala koo xam ne dañ koo jël stage naa nekk ñett ba naa def ñetti at wala juróomi at te duñ ko fay dara waaye nag loolu lislaam moom nanguwu ko daa bëgg ki nga xam ne moom nga jël ngir muy stage ci yow wala mu volontaire ci yow na doon koo xam ne engage jën nga engagement ci moom ci jëfal ko contrat ba noppi loolu mooy li nga xam ne moom la lislaam nangu ñu xam ne nag aj mu ngi war ci képp koo xam ne jullit la muy kon niñ ko waxe woon ndax kon dafa mel ni li ñu waxoon léegi ne jul lislaam du nangu kenn ku ci jëf te fekkut ne jël nga am nga contrat lislaam suñ borom ba noppi kon mu mel ni itam jëf ju mën a doon rek balañ ko waral ci ci nit ki dafay doon koo xam ne jël naa engagement ci nagoo doon ab jullit ba noppi ñu soo ko waral ci moom ndax lislaam bëggut kenn kuy jëf te li ngay mën nga caa bañ a am njariñ day bëgg lépp looy jëf rek njariñ na la ca fekk loolu moo tax mu doon lu am solo kon mu képp koo xam ne jullit nga am xel ba noppi itam suur te mën a aji te moom alal ja nga xam ne moom ngay ajee faw nga moom alal ji nga xam ne moom ngay ajee waaye boo ko moomut day mel ni kon boo ca ajee itam aj ga doonut loo xam ne lu suñ borom nangu la faw day doon alal ja nga xam ne moom ngay aje ji na doon lu la jox may la ko wala nga nga wala nga fàggul ko sa bopp waaye mënoo jël rek alal ju mën a doon dem aji ji te te fekk na moomoo ko wala da nga ko amee baaxul na mu war a am na mu war a amee loolu nag ñu xam ne lislaam bi muy bi muy farataal si ñun aj ak yi nga xam ne ñooy farata yi nga xam ne mënoo farataal si ñun yëpp muy julleeg woor ak nata asakaag yëpp dafa bëgg rek relation bi nga xam ne moo war a nekk ci diggante jullit ñi na doon relation boo xam ne bu dëgër la bu tegee foo xam ne itam fu fa mu war a tegee la mooy tax ba aj moo tax sàkkal nañu waxtu woo xam ne danañ ci mën a daje ci bis bu nekk muy julli yi juróom ñi de ñu bokk koñ ñëpp war nañoo mën a daje ci jàkka ja ba jullee fa bu ko defee xamante gi am la nga xam ne moo nekk seen diggante ci gàllan ci ay gàllankoor yoo xam ne am nañu ñenn ñaa nga ca ñe ñenn nga xam ne ñoom yàlla dimbale leen ñu xam loola ba mën leen ci jàppale muy kon julli yi juróom moom da koo def ngir ñi nga xam ne ñoo bokk benn gox waaye ajjuma nag da koo def mu mel ni comme dafa bokk ñi nga xam ne dañoo bokk julli dañoo bokk maanaam dëkk bi ñëpp ñoom la boole ñu war a daje ñoom itam di war a waxtaan di xam li li ñu war a jàppalante di xam na nañ war a dimbalante di xam liñ sëq ginnaaw boobu itam mu waraata mu defaat farata joo xam ne moom da koo def ngir àdduna sépp bokk ko ngir mën cee daje ngir mën cee mën a waxtaan mën a xam li nga xam ne moom lañ war a mën a jàppalantee mën a xam itam nan nañ war a dimbalante na xam itam li xam ne mooy war seen diggante nan nañ ci war a taxawee loola nag mooy aj kon mu mel ni suñ borom faggu li nga li nga xam ne moom la ñu wax ne innamal mu'minuna ixwa ba mu ko waxee itam bëggut rek ñu yem ci yëg yëg-yëg bi waaye dafa bëgg yëg-yëg boobu am jëf ju ca topp moo tax mu wax ne fa aslihu bayna axawaykum loolu itam moo tax ba tey itam xamante gi nga xam ne moom bëgg ñu xamante ko ñi nga xam ne ñoo bokk benn quartier bi wala ñoo bokk benn koñ bi ñëw ak ñi nga xam ne ñoo bokk benn dëkk bi ak ñi nga xam ne ñoo bokk àdduna sépp di xamante googu nga xam ne moom la bëgg ñu xamante ko yëgante ko loola daa bëgg mu doon loo xam ne dañ koy jariñoo ci xam ne ñun ñii ñoo bokk lépp kon lenn kum dal kenn ku ne ci ñun lu ko dal rek sa moroom la dal kenn ku nekk ci ñun itam lay sa aajo mooy aajo yi keneen ka ca des bu ko defee ñu mën cee bokk taxawadoo mën cee bokk xalaatandoo ndax xam ne suñ bo li li daa am lu ñu boole te loolu ñu boole nag daa am da dafa laaj jëf waaye doonut loo xam ne dañ ko war a dafa war a doon ab yëg-yëg rek kese loolu nag ñu gën koo mën a fàttalikoo ci bi nga xamee ne ñi ngi taxaw arafa ñu xam ne ñun ñëpp ay taxaw taxawandoo ci benn bis ñun ñëpp ay dem taxawandoo ci benn waxtu loolu nag lim nuy liñ ci war a jëlee mooy xam ne nii nga xam ne ni lañ bokkee benn bis daje bokk yitam benn waxtu daje noonu la ñuy noonu lañu la ñuy daje noonu la ñuy taxawee ëllëg ci kanam suñu borom te suñ borom bu ëllëgee bu ñu taxawee ci kanam kat danañu laaj loolee ma leen boole woon ngeen séq ko ndax yéen a nga ci doon dox na ngeen ci war a doxe wala doxewu leen ci ni ngeen a doxe loolu itam mu doon loo xam ne lu bàyyi xel la ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tam di ñu yëgal ne joon jullit rek wax ne jullit laa jullit ñi samay mbokk la nga yem ca loola looy na loolu doyut da ngaa war a doon koo xam ne da am yëg boo xam ne lépp loo xam ne moo itay jullit ñi nga yëg ne da caa war a taxaw ni nga xam ne nii nga ni ni ni ngay yëg ni ngay ni nga war taxawee ci sa soxlay bopp ndax nee na képp koo xam ne yaa ngi jàpp ne ab jullit nga kese te lay xew ci say mbokk jullit yëgoo ko bàyyi woo ko xel jéemoo ca dara nee na dafay mel ni bu ñu la waxee ne ab jullit nga tam am na lu des kon suñ borom mi nga xam ne moo nu mën a jàppale te moo nu mën a dimbale ba li nga xam ne moom la ñu sant ñu mën koo dox nii nga xam ne la ko bëgg ñu doxee ko yàlla nañu jàppaleel boppam dimbaleel nu boppam bañ xam li nga xam ne moom lañ séq te xam xam itam nan lañ ca war a doxe